Euh, effectivement euh, journée bi journée bu am solo la euh, mooy journée internationale donc de la femme donc dañ ko jagleel jigéen ñi et pour maanaam war leen jàppale dimbali leen ci seen xeex bi nga xam ni mooy pour seen émancipation mooy seen yokkute ak liy tax daal ñu jëm kanam waaw donc lu am solo la vraiment journée bi moo tax institut euh, bi ñu bi may diriger muy euh, ISIF ISIF Business School bu Dakar euh, di institut supérieur d'ingénierie et de formation ñun dañuy def ay formation dans tous les domaines du management dans la gestion du pétrole et tout ça ak qualité qualité hygiène sécurité environnement moo tax ñu bëgg def des formation de qualité pour les pour nos étudiants mais également di leen bàyyi xel ci yeneen i domaines yi nga xam ni comme tey bis bu bisu tey bi nga xam ni mooy bisu de de la femme euh, c'est très important ñu sensibiliser étudiants étudiants yi ak étudiantes yi yépp moo tax tey euh, ñu def bi boobu panel avec euh, le professeur Amsatou Sow Sidibé qui est notre la présidente de notre comment dirais-je inst de notre voilà, de l'Institut supérieur d'ingénieurs, la, la, présidente de, de pédagogique, hein, de, de, voilà, de, la partie pédagogique, hein, c'est la présidente. Donc, euh, mom, euh, euh, le professeur Fofana de euh, l'UCAD, hein, au niveau du département chimie, voilà, et de M. Danfara, qui est responsable de Cominco, donc qui est une personne ressource extrêmement compétente voilà et madame Diouf qui est donc euh, une qualiticienne voilà. tey euh, gis nañ ne bon le 8 mars jàpp ngeen ne jour bu am importance la ba tax tey euh, ngeen tëj classe yi pour célébrer ko mais depuis kañ la ISIF commencé célébrer 8 mars. waaw euh, effectivement ñun euh, commencé nañ ko célébrer depuis euh, quasiment une dizaine d'années hein? waaw euh, donc euh, daawuñu peut-être def euh, beaucoup de publicité par rapport à ça ou faire inviter, inviter les journalistes mais euh, vraiment comme nous sommes euh, voisins et on pensait que c'était vraiment une bonne occasion euh, de vous de vous associer donc à la journée vous Sénégal et nous vous remercions en tout cas vivement de votre participation à cette fête voilà bu ñu nee le 8 mars au Sénégal d'habitude fête lay doon te le 8 mars boo xoolee euh, histoire bi nekkul woon euh, fête mais dañ doon euh, célébrer ñoo xamante ne ay jàmbaar la ñu woon ci ay jigéen tey changement bi am nit ñi ñoo comprendre tul sens 8 mars wala lan la doon. Bon, je, je pense qu'effectivement, euh, bon, au Sénégal, on, on, a tendance à fêter tous les événements euh, bon, euh, sans, sans vraiment euh, ñu tenir compte, madame, ci euh, historicité bi ak fu mu jógee ak yooyu. Bon, moo tax quand même ñun dañu boole ñaari à savoir que le matin dañ ciy waxtaan. waxtaan ci solos 8 euh, bi ak euh, fu mu jógee ak euh, wax vraiment li femmes yi soxla seeni priorité ak fi ñu leen war a jàppale yooyu yëpp pour mu am changement parce que jigéen dafa am solo ci ci cim réew alors donc moo tax ñu def panel boobu ñun nit ay kàngam yooyu nga xam ni donc par exemple donc Amsatou Sow Sidibé nga xam ni moom mooy suñu suñu suñu suñu suñu njaatige fii ci ci ci institut bi ci ISIF et eh bien donc euh, seen waxtaan seen seen seeni gis-gis euh, ci ci wàllu ci mbir mi ci journée bi dafa am solo pour étudiants yi ak étudiantes yi moo tax euh, ba kooku benn pàcc la ci ci journée bi léegi nag après loolu ñu bàyyi xale yi ñu ñu ñu exprimer wu Euh, parce que seen seen seen seen bis la daal waaw. par rapport ak euh, expérience euh, ba nga am tey lan nga jàpp tey moom moom manqué tey ci femmes yi tey ba nga xamante ne à chaque fois dañuy réclamer tey pour mun a positionner wu mun a taxaw. man je pense que femmes yi li li leen manqué surtout mooy comme ni ko panélistes yi waxee woon benn engagement waaw il faut que les femmes sangage ba pare le femmes dañu war a jàppalante waaw mais en général les femmes n'aident pas les femmes waaw donc euh, du ñu jàppale seen seen moo seen naataango femme donc loolu lu am solo la parce que am na fi ay kàngamu jigéen yoo xam ni mën nañu jiite waaw mais il faut ñu am ñu leen jàppale te jigéen ñi ñoo ëpp ñoo ëpp fuuf donc ñoom jigéen ñi suñu bokk boole bokkoon seen seen seen boole woon seen doole jàppale jigéen ñu am fulla yi nga xam ni ñoom dañuy liggéey dañu bëgg ba bëgg réussir ah te dañuy jub dañuy nekk jigéen ñoo xam ni jigéen ñu jub lañu waaw ah, donc euh, loolu mooy indi développement loolu mooy indi développement donc loolu engagement boobu dafa manqué chez les femmes et puis euh, bon je pense que aussi li li li li waroon ñu def mooy ñu appliquer loi yi loi yi nga xam ne dañ ko teg. pour protéger les femmes yooyu dañ ko war a appliquer et su fekkee ni sax dafa am ay manquement wala ay ay ñaawteef yu am il faut que ñu ñu sanctionner sévèrement le code pénal dañ ko war a appliquer et de façon rigoureuse waaw parce que ku def ñaawteef war nañ la daan waaw war nañ la daan parce que ce sera euh, un dina dina fexe ba nga xam ni ñeneen ñi nga xam ni dañuy waaj a def ay ñaawteef ñu reculer voilà dégg nañ euh, ci biir panéliste bi mooy euh, le professeur en chimie monsieur Fofana ba mu naan euh, les femmes ne soutiennent pas les femmes. waaw dëgg la mooy li ma wax léegi rek les femmes ne soutiennent pas les femmes. ci lay joxe un exemple bay wane ne Amsatou Sow Sidibé demoon na nekk candidate à l' élection présidentielle te gañewul donc bu doon femmes yi jàppale woon nañ ko est ce que tey du doon mooy nekk présidente. <laughs> voilà c' est ça parce que quand même cent. des femmes de de la population ce sont des femmes 52 pour cent waaw mooy donc ñoom femmes yi ñoo ëpp donc bis bu sekkee na ne woon am nañu kenn koo xam ni euh, mën na am na programme boo xam ni mën nañ ko concocter ak les femmes neen ñun lii la ñu bëgg femmes yëpp jàpp ci mais y aurait pas de problèmes y aurait pas de problème pour les femmes pour ñu avancer te bis bu femmes yi amoon euh, le pouvoir. dëkk bi demoon na fu sore aujourd'hui yéen ñu yor euh, les écoles privées on sait que en grande partie femmes yi ñoo fa nekk est-ce que tey euh, dans vos écoles privées ci programme bi tey yaa a des cours de développement yoo xamante tey ñoom ñoo war a booster tey femmes yi ba nga xamante dinañ mën a taxaw tey fu góor ñi ne. waaw mooy euh, li may wax que au-delà de lu fekkee ni na ñun dañ leen di jox ay techniques ay ay ay ay ay comptabilité ay. ay euh, mathématiques ay ay technique daal pour pour mën a gérer ak yu demee noonu ay entrepreneuriat ak yooyu mais am na lu am solo mooy le développement personnel mooy mooy nga xam ne nit ki il faut mu am ay euh, qualité ay valeur ay euh, comme par exemple ay audace sans être mal élevé mais audace Euh, am ay qualité de de de d'engagement euh, des qualités yu yu de valeur yoo xam ni di leen leen permettre te ñun dañ leen koy jàngal dañ leen koy fay jàngal sur le plan euh, euh, su ñuy def dans la création dans la création d'entreprise wala yu demee yooyu dañ leen koy jàngal. plan relationnel et pédagogique. waaw le plan relationnel. ah bon yooyu yëpp dañ leen di wax euh, dans dans le développement personnel comment naka la ñu war a naka la ñu war a travailler en équipe de nekk bokk benn ah maanaam utiliser l'intelligence li ñuy wax l'intelligence collective waaw pour mën a avancer ndoo pour mën a dóora ndox dóorandoo ndox avancer voilà donc du jàng rek euh, disons comme ça noonu rek jàng ay affaire rek dem mais il faut que Euh, ñun en tout cas loolu fii institut bi loolu on dañ ciy liggéey bu baax a baax a baax sur la développement personnel waa nga xam ni nit ñi dañuy génn ak dootul valeur yoo xam ni ça permet de detre efficace maanaam da leen di permettre ñu ñu ñu mën a euh, dem ci biti dem développer seen gox euh, ak ak ak intelligence daal waaw. monsieur Sow Sénégal mu ngi lay jaajëfal. waaw jaajëf waay Sénégal. Euh, kontaan naa lool ci émission bi euh, yéen euh, seen seen seen institut bi institut bu institution bu extrêmement importante la dans le pays waaw parce que da ngeen di jottali ay xabaar mais en même temps da ngeen juste waaw loolu laa gis ci yéen waaw donc lu am solo la te dama leen suivre bu baax dama leen di suivre bu baax leen di remercier bu baax a baax a baax. te li ngeen ñu associé également seen bopp euh, ci ci ci ci événement wu tey bi.